management public moderne mais loolu dafa bëri lu mu àndal gis nga programme pour mu dox dafa ànd ak appel à candidature pour que boo tegee programme bi ñi koy saytu di ko doxal nekk ñoo xamante ne nii àlla yéwén ñu maandu la ñu doon ñu xereñ la ñu doon ku nekk post bi nga mérité ñu jox la ko loolu amul Sénégal recrutement massif dans la fonction publique moo am naxante bi moo am ku am mbokk ñu dugal la ku amul mbokk ñu teg la fële loolu moo am boo demee ci administration financière yi hmm. actuellement douane trésor impôt yu demee noonu surtout trésor ak impôt mhm. da nga fay fekk ay nit ñu baree baree bari ñoo xam ne daanaka xamuñu sax fan la ñuy toog parce que recrutement massif yi dañ nit ñi dañuy recruter seen mbokk ba pare yóbbu leen ci administration financière yi parce que jàpp nañ ne foofu moo ëpp xaalis. mais l'essentiel mooy nit fay indi tam na compétent mais loolu laay wax nii boo deful appel à candidature mënoo am nit ku compétent donc loolu dafa ànd ak. appel à candidature programme yi budget programme yi ñuy wax. dafa ànd ak aussi ay ay ay ay formation bu baax ba nit ñi xam lan mooy programme dafa ànd ak redevabilité maanaam bu ñu la joxee programme mhm. nga nekk ku ñu jël appel à candidature dañ lay jox indicateur de résultat maanaam ay saytu ne la da ngay jóge fii dal fële mhm. soo ko lajee ñu dàq la indi keneen donc aujourd'hui mhm. suñu fonction publique loi bi koy doxal ak texte yi kay doxal àndut ak budget programme bi ak finance publique bi ni mu évoluer loolu yëpp nag dafa laaj modernisation malheureusement nag su fekkee ne da nga jël ay nit yoo xamante ni xamuñu fan la monde bi jëm nga jox leen yenn position yi duñ xam bu mbir xewee duñ xam naka la ñuy fexe ba loolu yemb loolu moo dal Sénégal actuellement su ma su la déggee ni ngay waxee dafay mel ne donc la programme euh, d'action prioritaire ajusté accéléré si échec la jëm ah en tout cas ñaanuma ko mais nag euh, texte bind ko yomb na li koy doxal moo jafe dañuy wax euh, sàccum dënd yomb na wante foo koy tëggee moo lay moo lay jaaxal donc mm-hmm. bind texte rek yomb na Sénégal ay nañ trop ci texte mm-hmm. mais suñu administration problème bi mu am dëgg dëgg problème de management la dañuy war a teg mm-hmm. de principes de management ba pare teg les hommes qu'il faut ba pare ñu appliquer management boobu tant que amuñu ko nag citoyens yi dañuy sonn tey bu fekkee da nga bëgg rek benn casier judiciaire wala nga bëgg benn benn bulletin de naissance wala dara. Mhm. dangay wër ba sonn neexale wut koo fa xam ak yu demee noonu. mais loolu nag nañ nangu ay la yéwén nguur gi mi ngi def ay jéego sur wàllu informatisation. xam justement justement affaire bi foofu la war a jëm. Mhm. aujourd'hui loolu yëpp da nga war a toog sa kër dugg ci benn portaay wax ni nga tudd ak li nga bëgg ak sa benn numéro carte d'identité wala dara. ñu mhm. envoyé la document yooyu. loolu mooy administration moderne mais. kenn mënul wax depuis bi informatique commencé ba léegi naan ay ñoo ngi def ay pas non loolu c'est c'est c'est une exigence citoyenne dafa war a mën a nekk tout de suite parce que àdduna moo toll foofu loolu nag yooyu nag moom lañ càmbar ba ne wax dëgg yàlla jéego yi ñuy def doyul te li ñu gisee ne aussi ni la ñuy recruter nit ñi hmm. ak di ak di ak di ak di tabb kilifa yi méngoowut ak àdduna li mu laaj actuellement parce que jamono dafa changé changement yi dafa gaaw te gars yi ni ñuy doxalee wax dëgg yàlla dafa mel ne ku nekk euh, vingtième siècle ay mille cent et quelque actuellement on est au vingt unième siècle. da d' accord alors mais mais man li may jaaxal yéen bu ngeen di wax yéen ak ñi fa nekk yéen ay bokk en général formation. tout à fait ñëpp ñu si bëri ENAM ngeen génne. Mm-hmm. alors ku mel na tey Abdoulaye Diallo Diallo wala Hott du ñu naatable seen compétence quand même problème. ñoom ñoo bëggul doxal wala peut-être taxi yi Sénégal moo baaxul wala la lam tout le temps nit ñi loolu la ñu laaj. bon euh, euh, dama lay préciser rek foofu oui Abdoulaye Daouda Diallo effectivement inspecteur des impôts la. Mhm. xamante nañ bu baax. Amadou Hott euh, minuma ko. mas nañ waxante temps yi mu nekkee Angleterre nekkoon naa foofu benn instant mas nañ waxante téléphone à l'époque. Mhm. xam naa ne moom sax fàtte na ko. moom privé la jógee. Abdoulaye Daouda Diallo effectivement administration la jógee xam na administration. Mhm. Euh, mën naa am mi ngi jéem mais nag administration yitam dafa bari façon euh, ñaar dafa am mën-mën xam bu baax a baax a baax dafa am deuxièmement aussi am yéene dafa am ñaar yooyu yëpp bu bokkul nag sa mbir day des euh, xoolal en détail ni muy doxale nga seet ba xam est-ce que ñaar yooyu dajale na ko loolu laa lay laajte ndax jàpp nga ne ku mel ne Abdoulaye Daouda Diallo eh, li ñu soxla si wàllu finance si wàllu koom-koom yow fiscalité ndax gis nga ne mu ngi si apporter des résultats escomptés bon pour man euh, mi ngi jéem mais rupture yi ñu war a def pour adapter notre système fiscale maanaam suñu fiscalité ci monde moderne ci jamono ju ñu nekk nii euh, deful loolu eggu fa euh, rupture yi dafa dafa dafa dafa war a gaaw xereñ ba pare ñu teg ko ci ci ci ci ci ci ci fulla ju mat sëkk pour man euh, système bi mu fi fekkoon mi ngi ci jéem mais deful deful euh, deful une évolution notoire maanaam changement yi nga xam ne mooy mooy mën a indi valeur ajoutée defuñu ko changement yooyu euh, bëri na ci réforme administration outil bi maanaam liggéeyukaay bi mhm. utilisation informatique dañ ci war a dem ba ba mu jeex te loolu yëpp day des appel à candidature dafa war a am ci administration financière yi ak même administration yëpp jàpp naa ne Sénégal dañu war dugg ci loolu appel à candidature suñu recruter ba ne poste bi diw ak diw ci war a nekk dañ naan dañuy def appel à candidature man proposé woon naa ko ci administration fiscale bi ñuy def réforme yi mais dañ ne ma tegal loolu loolu dafa teel ci ñun euh, moo tax actuellement bëri na ay euh, affectation yoo xam ne c'est plutôt politique am na ay directeurs yoo xam ne politique a leen fa yóbbu te loolu nag li ñuy wax le poisson pourri par la tête maanaam bu fekkee ne kaw gi baaxul rek ci suuf dara du ci baax loolu daf ñu dal actuellement ci suñu administration maintenant textes yi aussi war nañ ko changer suñu fiscalité fiscalité la boo xam ne euh, dañ ko war a appliquer ci jamono joo xam ne mhm. ay biens tangibles la maanaam da ngay gis ay marchandise nii or aujourd'hui c'est des bien intangibles dañu nekk ci monde boo xam ne ay prestation de service la mhm. ay ay ay ventes la en ligne ak yu demee noonu te loolu yëpp économie bi ni muy doxee. Mm. ci monde bi. nga xam ne économie numérique dafa am doole. Mm-hmm. Euh, ñun loolu defuñu ko ci suñu fiscalité c'est des question techniques yoo xamante ne nii mm-hmm. euh, malheureusement euh, dañuy continuer di dox encore une fois. comme siècle bële passé alors que changé nañ siècle. d'accord mais fàttali na bind nga sax livre bu tudd fiscalité.